saraax la ñuy def ci xew xew làmb tey fekk fa Xaadim Gajaga président écurie Rock Énergie mu maire bu fut kaddu ya président Alioune Sarr yëkkati ngir ñu organiser ab tournoi ba xam kan mooy doon roi des arènes Xaadim Gajaga may président Rock làmb ba xëy bind moo sàkkoon ñu organiser tournoi de roi des arènes ba mu jàkkaarloog taskatu ca maison de la presse la xamle ne bu VIP yi pare pare nañ VIP yi ci làmb ji saa yu ñu pare rek CNG pare na tournoi bi tabb kii roi des arènes ñoom CNG noppi nañu ngir organiser ko kaddu ba mu tàbbee ci noppi waaruk énergie rafet lu wuñu ko kontaanuñ ca benn yoon Khadim Gadiaga may président ba moo génn xam le ne bile tournoi ñun intéressé wuñu un tournoi de roi des arènes ne nous intéresse pas ñun li ñu xam ba xam ko mooy Modou Lo roi des arènes kii baa le roi est roi ku daan buur yaay buur Modou Lo ñun duñu sorxo sorxo carrière am woon nañ ko fi muy jaar guddi yi ñoom ñuy wax waxi tournoi ñun ñetti objectif la ñu am ba ci njëkk ne doo suñu bête ñu garder couronne lañu am ñun ko yàqal ñun loolu moo nekk suñu kanam xooluñu leneen ku bëgg tournoi nga tànn yeneen mbër waaye bu ñu ci boole lamb jaa ngi ci crise am déet moom ngañ jaañ dëggal na li ni mel ba joxoñ baaraamu tuuma ki waral crise ba le principal responsable de la crise de l'arène c'est Balla Gaye 2 ngañ jaañ moo xam ne li ni mel ne crise bi du kenn Balla Gaye la moom la mu ca dolli mooy mbër yi ñoo war a compréhensif xam yan promoteur la ñu am léegi ñoom dañoo yombal seeni kase ngir ñu mën leen a tëgg rax ca dolli ne li waral ku dul Balla Gaye 2 ci làmb ji melokaanam ak dayoom ak carnet d'adresse permettre na ko ngir mu wut ay partenaire organiser ay combat boppam tey Balla Gaye bu bëggoon a suqali lamb ji balaa midi lamb ji suqaliku mbër la moo xam ne bu amee combat rek lamb ji suqaliku dañoo jàppoon ne combat Modou Lo Ama Baldé mooy suqali lamb ji waaye fi mu ne nii ñu ngi ci guddi gu bët setagul kenn ki mën a teg ji loxo ko mooy Balla Gaye 2 bu ñëpp bëgg la rax ca dooli ne promoteur bu tëgg Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 da génn boo leen fayee yu raisonnable production bu dee le 8 mars Mouña production moo yëngal ca Bargny diggante Saloum 2 ak Petit Baye Fall le 8 mars lañ fa séenee jàkkaarloo ca Bargny ci arène nationale le 8 mars Franc ak bébé Saloum jam production moo ko taxawal boobee dimanche 8 mars day fekk ca Linguère diggante Ahmed Dem ak Val 2 di fa jëflante waaye le 1 mars bii ca Mbour am nañ diggante Ousmane Gandigal ak Pathiam bu dee ca Bargny diggante ba ca Ndangaan Samb le 27 ba nag ak juróom ak 150 000 francs lañ fa teg bu ca sum le mars association FILS moo fa jëm foofee it fukki nag ak juróom lañ tegal mbër ya le 27 ba le 29 ca Fatick foofee waa comité de gestion bu arène Birame Tening Ndiaye ñoo fa woote ñoom 2 francs la tegal mbër ya bu dee le mars bi ca Adrien Senghor foofee waa fans këlam Mbaye ak Loum ñoo woote week bi ci biir réew meeg ci gox goxaan yi lamb dana fa saf